اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلق وقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم السلام عليكم ورحمة الله داية المحسنين والمحسنات ñu نيو دلين زيارة دي جل زيارة عليه الصلاة والسلام di ñaan suñu borom xasa wa jalla yal nañu yàlla jéggal ñu ngi leen di baal àq di leen baalu àq di ñaan suñu borom yal nañu yàlla boole baal di sant ñëpp te rafetlu macha allah liggéey bi am na solo macha allah sunu borom xam-xam liggéey bi ni liggéey rafet na yal yàlla fay ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si kër gi rek ñoo ngi lay nuyu di la siyaar te rafetlu sa taxawaay ak sa liggéey si kër gi bàyyiwun kenn nag. mu mel ni tey xam naa rek ñu ñëwaat si sunu téere bi ñuy wax alxasma bi yu keroog ñu ngi nekkoon si bunte bi doon wax si julli jumaa si la nekkoon kon yaakaar naa keroog ñu ngi ñu ngi yamoon si ñu ngi yamoon si ñu ngi yemoon si doon wax si wàllu xutba yaag ak da wara arab ak ah, la sa imam malik wax waaw lol salan lan yemoon kon tay ñu ngi wara commencé si wa min sifatihi manam kom mela yi nga xamni manam mo war ci ki nga xamni mom mo wara julli juma su tamit ñu ngi jéggulu rek baat bi nag dafa xaw a am jafe-jafe dañoo am si soj mi ñu ngi leen koy jéggulu kon tey ñu ngi war a commencé si raabihu imaamu wa min sifatihi an yakuna miman tajibu alayhi jummaha mu ni ixtirazan min asabbi wal musaafiri wa xayrihima ممن لم تجب عليهم ويسترط أن يكون مصلي المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعسر يمنعه من ذلك كون كيرو موي واخ نا وتستحب سبنن وتستحب طهارة فيهما سبنن كي خطبة موي إمام بملاب في خطبة يب wa fi wujubi xiyaami lay waral taxawaay ba nag si xutba yi laxumaa si ñoom ñaar dudu mu ni dénga dénga la muy wax ne raajaxu ñeenteel ba bokk na ñeenteel ba moo ni kon imaamu imaam kon ajjuma il faut am imaam wa min sifatihi bokk na melay imaam an yakuna na nekk mim man tajibu mim man tajibu koo xam ne alayhi war na si moom jumaatu juma waaw kon imaam bi day day nekk koo xam ne juma war na ko waaye ku juma warul man ta jiite juma moo tax mim man tajibu alayhi juma na nekk koo xam ne juma war na ko mu ne axtiraasan ñu moytu nu ko mina sabbi ndaw wal musaafir ak ko am ni tukkikat la mooy gan la kon boo nekkee ci voyageur de boo dee voyage ajjuma da ngay wàcc kon ajjuma waru la ndaw tamit li nga xam ni am na foo xam ni àggugu fa tamit ah, ajjuma da koy wàcc warugu ko kon mu ni wa xayrihima ak ñu nuroog wa xayrihima ak ñeneen ñi yoo xamante ne sa bokkul ak ñaar ñooñu képp koo xam ne ajjuma waru ko daal nee na nan ko moytandiku waaw kon ajjuma kan kan lay war mu ni imaam bi day nekk koo xam ne ajjuma da koy war waaye bu la ajjuma warul mënoo ñëw di jiite ajjuma waaw boo nekkee si tukki ajuma dab la ah ajjuma wàcc na la bu la neexee nag mën ngaa dem julli ji waaye ajjuma wàcc na waaw moo tax mu ne mim man lam mim man lam tajib xalihim maanaam ñi nga xam ni warul ci ñoom juma wa yustaratu moo tax mu ni itiraasan nan mooy tunduko mina sabbi si ndaw wal musaafir ak tukkikat wa xayri xima ak ñeneen ñu nurul ak ñeneen ñoo xam ne bokku nag ñaar ñooñu waaw wala ak ñeneen ñu mel ni ñoom mimman ñoo xam ni lam tëj alayhim si ñoom juma ak képp koo xam juma waru si ñoom mu ne wa yustaratu dañuy an yakuna mu nekk al musalli aji julli ja bil jamaaha tey la ajjuma yow may julli ji il nga dem sa mbooloo ma doo toog sa kër rek naa maa ànd ak juma ji bala nga mana am juma da ngay dem su juma ja fay nit ñi jullee nga julli fa ànd ak imam moo tax comme sarta la kii julli mu dem sa mbooloo ma wa yustaratu an yakoona almusalli bil jamaa waaw moo tax mu ni huwa moomu xutba bi tamit mu ni illaa li usrin si lu waaw illaa li usrin lu dul ngànt maanaam yem naxuhu day terewu min saalisi si loolu maanaam ngay xutba si lu dul ngànt maanaam kenn du ko dagg xutba waaw bu benn ngànt amul kenn kenn du ko dagg waaw ndax kii xutba tamit bu benn ngànt amul day ànd ak làpp moo tax mu ni tamit maanaam bokk na sa kii julli ji dañuy sarta si moom mu dem julli jee sa mbooloo ma waaye huwa alxaatibu illa li uzrin yamnahuhu min zalik mu ni dana bokk nag la tax xutba ba ñu koy dagg min maradin imaam di xutba ba sàgg imaam feebar imaam mu ngi xutba ba sàgg kiris jàpp na ko mu daanu wala feebar dikkal na ga wala leneen dikkal na ga moo mu ni min maradin moo xam dafa feebar ay junnoni no wole jinnede ko saɗɗa mo daanu ma benna man jinne man ko saɗɗa mo daanu mbamo yoore rab mbamo kiris mba darade ka metti ɓe diggente fi mbion hotbe montuɗo ɗem aw nahwi zalika walla yunuro yooyu wa ɓo fekke yumel noon deko heure fekk mo ɗon hotba a moni bo booba wa yejibu day war intisaruhu ñu haarende ko imam lil husri ñel ngantam l alkaribi sulu jige waaw hala a sah sili gëna wer kon dañ koy xaarandi ku ba xam imaam bii daanu wala imaam bii dañ xutba am problème ndax buñ ko xaarandi ko tuuti ngantam dina mën a jeex mu ñëw yeggale bu fekkee nag xool na ni ngantam du man a jeex nag ah bu boobaa nag si la ñuy xool nu ñu def waaw loo <coughs> tax mu ni alxamis ba ki juróomeel mawdihu muy place muy barab muy makkan bo xamne istitanu istitaanu dañ ko dekk kon fala tuqam jumaa ken du taxawal jumaa illa fi mawdihi lulul si makkan bo xamne ne lulul si place bo xamne yustaw taw lul bu dëkkawul jumaa fan ngay dexe rek moy fo xamne dañ fa dekk nit ñi dafa daje di fa difa di difa xëyee di fii si foofu fii si place boobee mu ne wa yàkkun day nekk moom maxalan di barab di place boo xam ne li iqaama dañ ko fay taxawale di ko fa saxal juma fa mi nekk tamit yumkinu day jàppandi almaswa pour ñu dox dem fa almaswa fihi balada su fekkee am réew la fa muy nekk sa réew ma day nekk foo xam ne kat foofu war nañ faa mën a dem waaw ak kaana wala kaana day nekk aw xariyat wala dëkk wala jumaa ji fa muy nekk day nekk dëkk boo xam ne dinañ fa mën a dem kon mënta ñàkk ci jumaa day nekk fu nu dëkke jumaa kenn du ko taxawal foo xam ne lu dul fu nu dëkke waaye day nekk barab boo xam ne des na fa mën a taxawal jumaa saa su ne ba pare day nekk foo xam ne nit ñi dina fa mën a dem nit ñi dina mën a dem foofa moo xam si réew ma ak fu mu fa mën a ne wala mu nekk dëkk boo xam ne nit ñi dëkk ñu fay taxawal juma loolu moom mënta ñàkk si juma beneen bi muy wax ni wa ama adabul juma ndax juma dafa am ay teggin bu ajjuma jotee dafa am ki nar a julli ajjuma dafa am ay teggin yoo xam ne ay adab yoo xam ne yow miy julli yi danga ngaa war da nga ko war a def danga war a ànd ak moom boo na sa mu ne ama adabu juma teggin juma ba sama netu juróom-ñettal awul ba sa jëkk al xuslu laha sangu cangaayal farata cangaayal juma nag ak cangaayal beneen bi yéene doo nga ne wuute cangaayal farata bi ngay sangu sa ajjuma ñu tudd ko cangaayal sunna ak cangaay bi nga xam ne cangaayal farata dalaa war muy dindi sobee nga def ko ñoom ñaar li leen wuute rek mooy yéene ji rek yéene ji yéene bi moo tax mu ne ama adaabu jumaat yi teggi ni juma ba samaneeti juróom-ñett la al awalu ba sa jëkk al xuslu sangu laxaa wa huwa moom sunnatun sunna la xenn jamhuri ci li gën a siiw loolu a si borom xam ne wax mooy waa min surwati yi bokk na sarta ya moom waaw mooy teggin juma an yakuna nekk a mutasilan nga jokkale ka bi rawaahi sa ngonta la su ngonta nag mun ko waxee maanaam mooy boo sangoo rek ba pare da nga war a daal di aw yoonu juma mun fa in aqtasala soo sangoo wa a nga soxla wo bi xaddaa in si xewlu maanaam sangu ba pare ngay dem di soxla wo añ ak yooyu aw noomin wala nga sangu pare tam tëdd di nelaw nee na xaare xoslu da nga war a sanguwaat xalaa ma sori si li gën a siiw ndax ñëpp xam na ne moom njàpp boo tëddee nelaw ba yëgatoo dara sa njàpp toj na te kon bi ngay sangu danga ngaa sanguwaale njàpp nga tëdd nelaw kon kay boo jógee war nga baamuwaat cangaay la moo tax mu ne nag fa in aqtazala wa astaxala bi xadaayin aw nawmin ahaada xusl ala masuuri kon nag ajuma li gën rek boo sangoo pare nga daal aw yoonu juma waaye bu fa doxale añ wala nga fay doxale nelaw ñu boo ko defee war ngaa baamuwaat cengaay la mu ne bokk na saani ba ko ñaareel ak jiwaaku socc socc bala ga dem ci juma da nga war a soccu waa si gémm ndax mbooloo ñoo fay dajje te mbolo fu ñu dajje ken wuru fa lorante ci lepp luy walu xetu gem ñaw yooyu dañ kay bañ nga dem ci mbolom di lor kon war nga ki sangu ci après ki ki julli ji ñu setal gem mu ci waap mu da socc wala lolu wala dal mo ut pat bombu ñu ba mu set waaw saalis bakanya ko ñettee juma ak xalq shahrin wat say kawar bu jote ba man wat say kawar ko wat si kawari bopp si kawari poqataan si kawari naq waxuma ne yëpp neen teggin la si juma mu ne raabi ba ko juróomeel ba tax liimi dagg say we moom si teggini juma la alxaamis ba ko juróomeel nee na taj jënnu bu maa yetta waludu minhu rayhatu alka alkarihatu maanaam alxaamis ba ko juróomeel taj junubu na nga dindi maa la nga xam ne yetta waladu lay day juddoo si yow minu maa la nga xam ne yetta waladu day juddu minu si yow mu mu nekk ay xet yu nu sib maanaam nanga nga fexe ba ndax boo watee say kawar ndax poqataan day xeeñ kawar gu ëpp ba ak yàggee day xeeñ mu ni kon war na nag lépp xeetu xet wala lépp lu mën lu mën a juddu si yow mu nekk xet goo xam day jóge si poqataan wula nopp wala kawar wala gémmañ wala lu mën a doon da nga war a fexe loolu nga setal ka maanaam mooy taj junub lépp lu war a mën a juddoo si si xet rek booy julli ji war nga fexe loola dañ waaw monsieur xet yoo xam dañ koy xet goo xam dañ koy bañ mu ni saadisu ba ko juróom-benneel ba taj jamolu bi siyaabil xasana waaw na nga ut yére yu rafet nag taar taarlu si yére yu rafet bu ajjuma jotee xoolal yére yi gën a rafet nga sol ko alxuraan nee na xuzu ziinatakum xenda kullu masjidin bépp place bu ngeen di jullee rek bu ngeen ko mënee ak fu ngeen mën a nekk xool li la gën a set seeni yére lu gën a lab seeni yére maanaam nag rafet yére yu rafet ak yére yu lab daa bokkul lu yére rafet rafet te laabul bu yére rafetee te laabul kon kon kon nekkul xusoo sinatukum xenda kullu masjidin waaye yéene même bu taarewul te laab kon moom nekk na xosoo siinatakum xen kulli masjidin waaw bu rafetee nag ba pare laab sa la gëne sa gëne waaye kon laab gaa si am solo kon jël leen seen yére yi gën a laab si bépp place bu ngeen di jullee si déggin bokkul ak jëlal yére yi gën a rafet nga jullee bu yee rafetee te laabul taxul ñuy wax waaye bu rafetee te laab moo gën waaye bu rafetee te laabul baaxul bu ñaawee te làpp yin moo gën te te rafetul kon laab gi moo tam kon jël leen seen yére yi gën a set gën a laab bépp place bu ngeen di jullee mooy xusoo siinatakum xendakul masjidin jël leen di gën a laab si seen yére ngeen jullee ko moo tax nag mu ni ah juróom-benneel daal mooy te te jàmmulu xasana ngeen xool yére yi gën a rafet ngeen jël ko yu gën a laab ngeen laabe ko ngeen jullee ko waaw nee na ta ta yibu nee na tata yóbbu ngeen xool xet bu neex ngeen laal ko lu mel ne ay parfum yooyu waaw parfum bu neex nga laal ko <coughs> ni zaaminu ba ko juróom-ñetteel almashu dox laha ñel doonu ru ko loolu war na boy dem juma li gën nga dox bu dox bu do gëddu la gañ ndax li tax ñu jublu si dox ndax boy dem tank bo yëkëti ba keroog nga àgg dañ lay bindal tuyaaba boy ñew ko saari gëna ko non kon dox bi gëna solo rek sa tuyaaba gëna yok motax mo ni ma ne sopp nan tay bokk na tegg ni juma saamin ba ko juróom ñetteel al yu dox laha ñel doonal rukkoo bi si lu dul war illaa li xusrin si lu dul ngànt nag fekkee nag am nga ngànt amul problème mu ne illaa li xusrin yamnahu min zalik bu fekkee nag lu dul bu fekkee nag da nga kenn du tere loolu dox gi fekkee nag amoo benn ngànt boo ko mënee nag dox moo waaw su ko defee xam naa ñu yem foofu rek ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaara di leen jéggalu baax a baax di ñaan suñu borom xasaw jàll lépp lu si jub yal nañ yàlla defal ay leer lépp lu si dëng ñu jéggulu leen ko di ko jéggul suñu borom di siyaare ñëpp macha allah si taxawaay bi bu baax a baax a baax alxaaji mo imam baba macha allah taxawaay rafet na yàlla na yàlla fay leen yàlla defal leen taw fay defal ko ñëpp nag si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam